rek ñu am première réaction am euh, bu fekkee mën na ñëw donc am nañu information que Kader est libre donc euh, ñu fas yéene leen ko docteur rek en direct euh, voilà. voilà donc boo xoolee ci dossier bi ñun lu ñu mënul comprendre mooy convoqué nit ba pare waxuloo ko lan la lan motif yi ñu koy toppee lan la mu ñëw toog waxoo ko motif yi ñu toppee lan la sénégalais yi heure bii démb amul benn sénégalais boo xam ni mënoon na la wax lii la ñuy toppee président Bougane te li ci gënoon a bizarre moom mooy. tous les militants de PASTEF xamoon nañ ni dañ koy garde à vue le plus petit militant de PASTEF xamoon nañ dañ koy garde à vue beneen bi aussi mooy des dossiers yoo xam ni dafa nekk en instruction nekk en audition comment se fait-il que ñu koy retrouver sur la place publique loolu aussi dafa nekk loo xam dañ ko war a déplorer la judiciarisation de l'espace politique ñun ñëpp mun ñu bokk xalaat ñun ñëpp mun ñu bokk ay opinion ñun ñëpp mun ñu bokk ni ñuy xalaate ñëpp mun ñu bokk programme beneen bi aussi mooy boo ñëwee ba toog ki toog nga créer ko dossier ko diffusion de fausses nouvelles mais c'est Ousmane Sonko qui a diffusé une fausse nouvelle parce que tout simplement bi mu waxee ba pare les organismes spécialisés bi ñu waxee chiffres yi ñu avancé dafa contradictoire ak li Sonko wax beneen bi mooy rapport du de des comptes yi mu avancé ak li Ousmane Sonko wax dafa dafa dafa contradictoire donc dans ce pays seul Ousmane Sonko moo fi avancé benn chiffre léegi nag Ousmane Sonko bi mu waxee pare Bougane daf ko contredire kon Ousmane Sonko moom moo diffusé une fausse nouvelle bu dee aussi charge yi nga xam moom lañ njëkkoon teg ci ndoddam ba pare daat koy dindi muy injure publique Ousmane Sonko moom moo injurier publiquement parce que moom moo taxaw ni président Macky Sall daf doon fen sénégalais yi président Bougane ni ko li nga wax waxoo dëkk mais entre Ousmane Sonko ak président Bougane kan moo ci def injure publique nañu wax opinion bi xam nañ dëgg gi fan la féete te xam nañu ni li ñu bëgg a def mooy disloquer cette bloc euh, ce bloc générationnel à travers euh, la justice. d'accord jërëjëf Moussa mm-hmm. merci ñu ngi lay gërëm alors ñu jël Kader Kader bi nga xam ne kon ñu ngi koy door a libéré Kader ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay masaw baax euh, ñu bàyyi la nga wax ak sénégalais lan la ñu mën a jàpp si sa libération gannaaw ba ñu la nuyoo ba pare. waaw sant leen gërëm leen gërëm toute la presse sénégalaise gërëm aussi li nga xam ne rek moom moo di ñi ci taxaw ñëpp. à commencer par euh, mon avocat ou bien le pôle d'avocat dirigé par euh, maître El Hadj Diouf vraiment remercier leen ci liggéey bu am solo bi nga xam ni def nañ ko remercier aussi ma famille mais aussi mes amis et plus particulièrement euh, Moussa Thiam qui est un frère un ami donc euh, vraiment wax ne ñi ngi sant yàlla bu baax a baax. alors lu jëm si sa libération bi naka nga ko dundee. waaw sant sunu borom sant sunu borom parce que beaucoup pensaient que ni du mën a nekk. ku ci nekk wut na lu mu wax ñii wut nañ ay charge ñii men dem nañ sax bu wutal ma ay charge ak ay peines yoo xam ne moom lañ jàpp ne moom lay tëdd mais comme j'ai toujours eu confiance en la justice de mon pays et que tey maa ngi nii après 72 heures euh, sant yàlla bu baax a baax donc euh, gën di am yaakaar ci sama justice réew ba pare. nga am ay retour de parquet yu mag ñaari retour de parquet loolu lan nga waaw difficilement quand même parce que euh, ça pèse lourd ci xel ci xalaat mais toujours da ngay gëm rek. Euh, ci jàmm lay mujj parce que mënta woon mujj ci lu dul kay génn ndax euh, képp koo xam ni topp nga dossier bi commencement ba fi mu yegg si dangay xam ni li ñu war a def lañ def en tant que chroniqueur en tant que citoyen en tant que koo xam ne si ne am na xalaatam di ko wax wax ko ah, ca na mu gën a rafetee pour faire comprendre aux téléspectateurs de la Sen TV plus particulièrement à ceux qui regardent li nga xam ne moom moo di euh, grande gueule que lii mooy suñu opinion lii moom mooy suñu gis-gis donc s'il y a des gens yoo xam ne seeni ni ils ont tout fait pour actionner euh, le procureur pour que mu am ay poursuites parce que seen xel moo toll noonu mais que tey mujjanteel gi rek mooy ñi ngi nii et ni mu nekkee ci man noonu tamit laa ko yaakaaree ci le président Bougane noonu laa ko yaakaaree ci nga xam si seen aussi mooy Cheikh nañ fekk si ñu ndax maa jiitu Cheikh Yérim fekk si ma Bougane doog ñëw fekk suñu mais ku ñëw fekk ñu danga nga naan non lii naka la mën a possible parce que jàmm ak xel mu dal bi ñu nekkee ak aussi dund dund dund bu dund bu nangu nangu nattu yi mais aussi nangu ni ak lu mën a am dëgg moom mooy mujj et que dëgg bi mujj laa gis confiance boobu ci le président Bougane Gueye Dany gis ko ci nga xam ne moom mooy Cheikh Yérim Seck et ku duggoon tey ci biir fekk leen fa da ngay xam ne ñii amuñu dara stress amuñu dara dara luy wane ni. am na lu ñuy ragal wala am nañ quelque chose à se reprocher et que aussi continuer ba tey di am confiance rek ci suñu justice réew gëm ni euh, li ma fi génne tey dina génne ñeneen waaye li wér mooy ci sama condition wu liberté loolu damay bëgg a bàyyi primaire boobu